boo dafa yokk ñu daw te bidon diw ñoo ngi koy jënd ñeenti junni bu nu koy jaay juróomi dërëm rek lan ci am bu nu koy jaay juróomi dërëm rek lan ci am farmen liit yi amatul yii la ñuy jënd bii nii 5000 lañ koy jënde bii mu mat bii du mat seer ba bëgg a dee rek bu ñu jëndee seen léeg-léeg du mat seer la def jógee ci 14500 je pense dem ba vingt et quelques mille loolu nag moom day impacté liggéey bépp bépp bépp loo daan jëndee litre 900 mu dem ba 1100 xamuñu lu ko waral nag mais daal dañuy gis ne prix yi moom ni muy flambé kenn mënu ko comprendre. bon sañoon ñoom ñuy wax ñu ci lan la ci commerçant yi la wala ci état bi la. fii si da ciy impacté bu baax a baax da ciy impacté bu baax a baax a baax ndax finalement da nga daan jënd bi noonu teg mais instant yi da ngay obligé ak dëkk bi di ko détaillé. ndax tey jii boo gisee tey bëri na ay réformes yoo xam ne état da def ci port bi euh, ñun waroon nañ cee dem grève en décembre mais finalement peut-être xëy na dañoo trouver terrain d'entente da ngay gis conteneur yi bari day nekk port pour seeni i borom jot ko du yomb lenteur boobu moom moo ko moom moo ko gée mais bu fekkee ne tey jii euh, da ngay dem bitim réew dem jëndi sa bagage ñëw ci port bu dakaar ci semaine nga war ko mën a jot nga toog fa un mois deux mois mënoo koo jot te chaque jour nga di ko fayal loolu li yokk bagage yi ci lay ci lay ci lay ci lay bokk mais ñu ngi jëpp di jum ci si koor mais liñ fi seetlu dëgg te mu jafe fi mu seer fi mooy diwlin mais yeneen bagage yi xaj na yokk am na. mais du feeñ ci clientèle bi ndax bu fekkee ne tey ji bu ñu nee saako mais yokk na mille francs du tey kilo bi ba mu doon jar loolu lay jar mais commerçant bi la mu ci doon am moom mooy wàññeeku mais diwlin daal lañ gis ni jamono ji moom euh, metti na ci dëkk bi parce que dañ ko du teg bët sax ñu ko fi am bëriwul waaw ok